salam salam salaamaaleykum kumba am nday kumba am nday dafa xew ci rew mi gañ fam yàq fam nga deglu len audio yi bu baakha a baax man dama choqué tay la ba aduna Fouta Tampi li mu wax ak kam ko don waxal muy am zozo ci appel bi ak ki nga xam ne mooy Diva Saliou waye deguma ben non am zozo wax ci wala Diva Saliou wax ci lul dul un un rek noonu li mo munta nek mom deglu len audio yi bu baax xaaral man di daf ma jaxal Sénégal yàqu na. noo perte pépét. xamuloo xamuloo dara maam Ndiaye Savon lii su ko Fouta Tampi waxee moom xamuloo dara maam Ndiaye Savon maam Ndiaye Savon kenn xamuloo ko dara barke Sidi Birame Fall audio yi bëri na audio yi wax ji ñaaw na noo vraiment lii doy na waar quoi lii dara àdduna jaru ko quoi influenceurs yi dimbale leen nit ñi ngeen di wax lu baax di def lu baax di àtte dëgg. Mame Ndiaye Savon dafa nekk ci carrière mi ngi liggéey réew mi bëgg ko jox ko bopp Diva Saliou mi ngi liggéey boole patak organisé mosul wax wax ju ñaaw musu fee def lu lu ñaaw te ñoom ñëpp ay jigéen nan bu leen bu leen mënta jàppale nan leen bàyyi moo gën jigéen danga nga war a gëm sa bopp nga dem liggéey wala nga dem sëyi am jëkkër loolu mooy dëgg mais quant à sëyo sëyoanoo wax ju ñëw nga dugg ci loolu du cëru jigéen parce que imagine yow da nga war a sëyi war a am ay goro war a am ay naw say te nawle dafa foor nawle daa foor lii jigéen di ko def si yow te te yow ñi ngay classe ñëpp ñu ma dégg ñëpp dañuy liggéey Mame Ndiaye Savon day liggéey ay place la yor Diva Sall mi ngi liggéey mu ngi jaay ay place la yoon fant mbub mi ngi liggéey ay place la yoon donte man dama koy tooñ sax léeg-léeg mais ku am jom la femme bu brave la fi mu tàmbalee carrière dafa taapa taapa mbindaanu jànq lu ne mu def ko liggéey ba toll fii mu agsi kooku jàmbaar la Mame Ndiaye Savon ci benn la tàmbalee noonu Diba Saliou man laa xamul lu bari mais xam naa ne moom it liggéeykat la femme battante la pourquoi yéen femmes yi ngeen xam te ne xëyoo leen gontoo leen bëgg a jël ñooñu teg leen bët di leen yàq di leen weer ci internet bi saa su ne xool leen baax li ngeen def te ngeen dem liggéey ah.